Benno, avec Benno, jusqu'à la paix. Benno, avec Benno, jusqu'à la paix. Benno, avec Benno, jusqu'à la paix. Benno, avec Benno, jusqu'à la paix. ñëpp doon seet tey ji feeñ na. bëri mun moo ko doon wax nañ def réunion nañ def réunion mais politique booy def réunion te amul objet finalement ça n'a pas de sens. moo tax ma doon xaar mu am objet bi am nañu ko muy candidature bi mais aussi parrainage bi nga xam ne commencé nañ ko àdduna tey région de Kaffrine mooy première région bu réunir ci parrainage dans le Sénégal loolu dafay wane organisation ak liggéey bi ñuy def nañ xool bilan yi tey ku dem Sénégal. tey Kaffrine mooy référence dans le Sénégal képp ku romb Kaffrine oo nga ma ci guddi nga ne ma li ma gis Kaffrine gisuma ko fenn mais kon nag ñun waa Kaffrine ñu ko nangu rek te yàlla yàlla. candidat bi nga xam ne moom la ñu tànnal muy monsieur Amadou Ba côté profil en face y' a pas un profil bu ko mën a égaler te ñun donc ñoo fi am programme kon on a tous les atouts. mais nag ñi mu jàkkaarloo c'est de grands manipulateurs kon il faut ñu wax ak askan wi mu leer nañ responsable nag dafa am lu muy res dama bëgg responsable yëpp wàcc ci terrain bi conscientiser les masses. Abdoulaye Seydou Sow mu jàppale suñu euh, candidat à la présidentielle monsieur Amadou Ba pour que élection yi ñëw ñu am ko ci ni mu gën a leeree mu gën a gaawee premier tour. kon monsieur le ministre suñu wax mooy ñun waa département de Birkelane. ñu lay jàppale topp sa gannaaw ànd ak yow ñu jàppale le président Amadou Ba. pour que la coalition Benno Bokk Yaakaar am li mu bëgg au premier tour au soir des élections incha allah. tey ku nangu ak ku bañ Abdoulaye Sow mooy patron wu région de nga woote ñu ne lan nañ fas yéene lu ñuy wax parrainage pour sunu candidat muy le président Amadou président de la république man Amy Ndiaye ñii bi comme ma joxoñ ma ànd ak moom waaye bu may ànd ak moom it yaakaaruma sama bopp doomu ndax lottu naa ci ki ma yaakaar mooy sama askan commençant par ñii ki nga xam ne mooy commune bi nga xam ne ñoo ma fal ma nekk maire te ñi fi jaar ñëpp dañ maa dëggalal sama wax jama taxaw wax ko ci kanamu président Macky Sall mooy président Macky sàll responsable yi ministre yi directeurs yi députés yi bu ñëpp defoon ne Ablaye Seydou Sow liggéey bi dana yomb kon ngërëm mënta weesu loolu. chers de Benno Bokk Yaakaar la présidentielle de 2024 demain le temps est compté les mois les jours les heures et même les secondes aucune élection n'est gagnée à l'avance donc nous devons nous mettre dès à présent au travail pour assurer une victoire éclatante à notre candidat Amadou Ba. tey Macky Sall nekk président de la République suba nekkatul président de la République je suivrai toujours le président Macky Sall président wax na ci secrétariat bu toog le seul candidat que j'ai le seul candidat que le Benno a c'est Amadou Ba bu fekkee nit parce que yaakaar na ni ministre nga yaa ngi am posture mën nga jënd ay responsable yaa ngi nax sa bopp y a des ministres qui se sont lourdement trompés parce que yaakaar ne Macky Sall li mu leen jox mën nañ koo xeexee le président Macky Sall c'est inacceptable c'est inélégant c'est maladroit ñun duñ parrainage du maire suñu yoon nekku ci parrainage député suñu yoon nekku ci ñun parrainage citoyen la liggéey boobu laa bëgg ñu defar commune bu nekk responsable bi fa bureau vérifier carte par ba pare na ko nit ki signer boppam jël carte d'identité jàmbur nga signer sa place am c'est un délit. numéro bi. numéro 117 la 1 1 ak 7 mooy numéro ba nga xam ni képp ku parrainé Amadou ku la woon fiche ne la Amadou Ba laay parrainé te amul 117 du dëgg numéro bi fii lay nekk da ngeen ko gis foofu. et la région de Kaffrine président bëgg na fi am minimum de 100 000 parrains dans la région et loolu c'est possible. le président Macky Sall au travers d'une approche a officialisé son choix le septembre Il a proposé au parti et à la coalition le Premier ministre Amadou Ba comme leur candidat pour 2024. Fort de tout cela, nous, maires, présidents de conseil départemental, élus nationaux et territoriaux, responsables et militants sympathisants de l'APR, et de la coalition Benno Bokk Yakaar, de la grande coalition de la majorité présidentielle, soutenons et accompagnons totalement le Premier ministre Ba, candidat de notre coalition Benno Bokk Yakaar. Assurons au candidat Amadou notre parfaite volonté de lui réaliser le maximum de parrains des niveaux rarement égalés dans notre région, voire dans notre pays. garantissons au candidat Amadouba une victoire nette et sans bavure dans le Koumane au soir du février Vive le président Macky vive le premier ministre Amadouba, vive les coalitions Benno Yakar et de la majorité présidentielle, vive le Koumane, tous pour une victoire au premier tour le février Avec Benno, jusqu'à la paix, Benno. Avec Benno, jusqu'à la paix.